nga loolu dafa am solo mhm. gis nga ma jëmee Atlanta tamit waaju maam sénégalais yi ci maam soxna waaw ñoom ñooy ñooy ñooy organisé wu ma mhm. ñëw Columbus ci Ami Camara mhm. ah, Washington maam Binta Thiam Boston ci asu lu ci nekk rek bu ma fi jógee rek dem luñ ma yëkkati la yëkkati moom damay dem pour communauté bi damay dem pour communauté bi très bien te loolu xam nga moom sant yàlla la am na sax ñu naan ñoom waa bitim réew ngay gën a tëggal que waa Dakar waaw que waa Sénégal par exemple pourtant nag Sénégal li nit ñi xamul vendredi samedi dimanche. waa Pape lépp dama ko joué ak ñii nga gis Pape man fii mariage yu mag yi yëpp maa ko tëgg. ci xew yi loolu dëgg la. mariage yëpp maa koy tëgg. xew yi waaw mariage yooyu yooyu. mais di tëgg. ci ci ci club yi nit ñi di ñëw di enjoy Daba Seye loolu itam dañ koy bëgg xam nga club yi li problème bi Pape. li nit mhm. ñi desee xam. Mhm. club bi des fois yow yaay jël sa xaalis investir. Mhm. Ah, te doo am dara des fois nga gagné tuuti des fois doo ci am dara mhm. mais lii dangay am cachet ñu fay la mhm. ba pare booleeg di la may ëpp mhm. avantage ak géer ñi ak géer ñi mais sa digganteeg géer ñi sa digganteeg géer ñi ba tey bokkul ak sa digganteeg sa fans yi déedéet du benn ah géer ñi maanaam géwél day def part des choses waaw gis nga digganteeg soppe yi ak digganteeg géer ñi ah gis nga gis nga gis nga gis nga dama toog léegi gar mi wax ko nee na <laughs> géer gu baax boo ko rombee uh-huh. bu ko dépassé. waaw waaye géer ak leneen boo ko rombee. dawal waaye dawal ba <laughs> xoolal signaler droite daw yoon dem yoon. <coughs> yàlla moo booleeg ay géer ñu baax ñoo xamante ne ni. aw ma seen fay. Mm-hmm. wallaahi ay géer ñu spécial ci man. Mm-hmm. yu resté ci Daba Seye. Mm-hmm. yu fidèle ci Daba Seye. daf lu garaaw laa lay wax. fan si leneen la. mais mën a géer ni ci teraanga boo xalaat. ci jëlee Daba Seye fii Sénégal yóbbu bi def naa 17 pays. Mm-hmm. te lu ci nekk rek jéer moo ko def. Mm-hmm. ma fekki ko. Mm-hmm. nga boole fay ma. loge ma. teral ma ak ku ma àndal. dama ci joxe benn exemple bu ndaw rek. ku ci mel ni maam Soxna Lo. maam Soxna defe naa ni teraangaam ci Daba Seye wër na àdduna. wallaahi wër na loolu moom bu ma koy wax sax fi lay fanaan. ku ci mel ni Sala saw bu Iliman la Sala Sow. moom laa tuddee pot mhm. ak silence man ambulance laa ko tuddee sauvetage mm, dafa gaaw moom da lay sauver salamata sala sauvetage laa ko tuddee sauvetage la Baye Cheikh mhm. wax tuuti mhm. jëf lu bëri jëf lu lay def sala noonu la mel ca boo ko waxee rek sax tooñ nga ko uh-huh. boolewul dara ki wax ku ci mel ni ndeytaal tooroodo bu Abuja def naa mës naa la ko paas fekk nga ko Abuja d'ailleurs fekk naa ko Abuja dem ba Abuja mu invité ma Abuja woye woyekatu Abuja woy ak woykat Abuja maa ngi fàttaliku loolu gis nga loolu <laughs> kooku mënu ma koo fay ku mel ni mhm. Bali Dieng bu mhm. Italie mhm. même chose damaa bëri ay guerre tey bu may lim fi lay des guerre ñoo xamante ni seen nga ci man yaa xam wurus la mhm. yaa xam xaalis la mhm. yaa xam xeetu baax baax bu géwal yayoo rek mhm. samay géer dañ ma ko defal mais diggante géwél ak géer am na ñu ko comprendreul waaw yenn saa yi nga gis nit mu ne kii géwél rek la waaw yenn saa yi nga gis nit ne lan moo tax kii ñu koy may waaw man damaa expliquer ba sonn <laughs> ab géer laa waaye ci ngéwél gi rek laa bokk mm. euh, lan mooy relation géwél ak géer surtout géwél bi way Pape Cheikh man ku ci mel ni man su buur yi daan jóg sama maam yi ñoo leen di jiital ku ci mel ni man maami sala saw may na jëng mi jur kulu ma ñoom bi ñu ganisee àdduna suñu maam yi ñoo leen jox seen kon sala yaay juddoom maay juddoom ah. ku ci mel ni Mara Dieng mii moom ñu génn la maam Taale Jëng mi ko jur uh-huh. am na turandoo suñu kër ñoom bu ñu juddoo suñu wenn kon Mara tam yaay juddoo ñeen lañ waaw yéen moo tax muy galaati gis nga dafa ko tax a ngéwéle moom léeg ci yéen laa bokk ku ci mel ni Siga Jëng ñoom bu ñu suñu wenn la ñuy njëkk naan ah. kon loolu xam nga juddu la fi lañ ko fekk xam nga géwal bu jug di ànd ak géer wala nga ànd ak buur mm-hmm. bara buur a falu mm-hmm. nga ñëw wooy bu buur falo ba war a yëg ci fasam nga ñëw woy mhm. loolu cosaan parce que am na ñu géere ñu amul xel ñu dul comprendre loolu lu tax ñuy may kii lu tax ñuy may géwél lan moo tax bu ñu woyee ñu may leen am na ñu ko comprendre tax géwél nag war naa xam boppam ci richesse mhm. wala xam boppam ci juddu ba du ni ah géwél la rek ndax géwél du rek non géwél du rek ah, ah, géwél dafa bëri lu mu àndal waaw géwél du rek Baye Cheikh <laughs> da ngay bañ ah ak ak rek waaw ah. Baye Cheikh ni day am valeur te valeur ni tëgg ni tëgg wutal boppam de dëgg la damaa waxtaan Mamadou Mansour mu ne Mamadou Mbaye Garmi hmm. dama ne géwal bu melee ni mu war a mel hmm. buur la ba kere muy dee wallaay buur la ba kere loolu la ñu doon Baye Cheikh foo nga nekk ko donc da ngay nekk garmi rek da ngay nekk garmi rek bala laa géer a teral nga teral ko billaay baraa géer a jóg jëm si ci yow fekk na nga pare jógal dem ci moom jógal dem ci moom eh, balaa géer a def lu mu mënti doon rek na la ca fekk bu ñëwee ak mbaaxam na la fekk nga baax te yaatu ba pare waaw moo tax géwal li ma la wax léegi bu mu nangu géwal la rek ah. loo doon sax bul nangu rek ah. parce que rek dafa gàtt mm-hmm. te géwal dafa war a yaatal mm-hmm. waaw te te yow yàgg sa jos yàgg say yàgg say géer mm. da ngeen da ànd ànd yu ànd yu yàgg ànd bu yàgg lañu ànd ku mel ni Siga Dieng sama juddu la mm-hmm. dama ko war a woy ba dee dinaa ci ñëw léegi ku mel ni Salamata sama mam yi àndoon ak ay maam maamam dama ko war a woy ba dee xam nga dafa am loo xam ni ndono la mhm. dama am tante bu ñuy wax Fatou Ndiaye Mboup mhm. Pape Cheikh foog nga seet ko ci mën a woy mag la nag mais dafa mën a woy c'est vrai que magu géwél yi dañoo mën a woy dañu mën a woy yenn saa yi nga dem ci kër magu géwél mhm. réew mi duñu ko xam waaye ci waxtaan bu la woyalee rek sa xol nga sa bi seet moom nag ci la bokk wallaahi daf daan ànd ak yaayi sëñ Saliou Thioune mi mu Cheikh Béthio ah, xam nga yaayam ak sama papa bokk ndey ak baay macha allah bu sama tante woyee muy tàggee waa ñegeen ñoom maarañ ñi ñoom amuñu lu ñuy def te sama sama tante yi taxawuñu mm-hmm. buy toxu këram sax sama tante yi dañuy ñëw nekk ak moom ba mu war a ñëw mm-hmm. ku ci mel ni Ami Kan Fall bu baay mm-hmm. Baxaw Fall Ami Kan ñun ñooy seen juddu wallaahi kon loolu cosaan la lu yàgg la da ngay ñëw woy nit rek nit ñi duñu comprendre duñu comprendre am na heureusement ba ñu dul comprendre dañoo minoritaire <laughs> dañoo tuuti dañuy ndaw waaw mi ngi noonu waaye la ca maam itam hélas sët da koy doon Baye Cheikh mi ngi noonu tudd na Fan Ndiaye Mbuub léegi bi sàmb mbub dee dee génn dee jël soxna. keroog aji daane dafay da nga yàgg addina day tukki. lu ne ci lu lu ne ci waxande bi di ko ko di ko ko jóor. daal ko xam Fane Ndiaye moom da nga lan moo xew. mën a wey ak eh. Géer. Eh. dëgg dëgg euh, tubaarkàlla li nu maam bayee. Mm-hmm. balaa jeex nu dee. Mm-hmm. Mm-hmm. bu nu ko toppee balaa jeex nu dee. wallaay wallaay teraanga rek la noo dee. wallaay wallaay Daba Seye dinañu woyalaat léegi nii parce que tey groupe am la àndal. Euh, ñu defal leen lu oyof rek ci guddi euh, tabaski am na itam yeneen i xale yoo xamante ni ñoom it ñu ngi fi sànq maa ngi koy wax génération bi léegi mm. euh, daf ci am ay xale yoo xamante ni ku ci nekk yaa ngi góor góorlu pour bégal melomaan yi moom nag ku ci tudd Moustapha sama doom la Moustapha dafa mën a woy ak woy nañu ko installé en attendant <laughs> Daba Sey di wax ci moom xale yi dañu am talent Daba waaw moom nag day sama doom ba pare sax di sama xarit mm-hmm. Mm-hmm. ndax soriante wuñu mm-hmm. du jaar mukk sama buntu te duggul ci man seet na nekk nit ko am cër mhm. yàgg na tuuti boobu mi ngi petit dama ne ko <coughs> yow dama am ci yaakaar mhm. parce que xam nga kon dama ko teel ñaax moom dama ko teel a ñaax très bien Moustapha mhm. yow na nga góorgóorlu yéen ñëpp ay xale ngeen waaye yow dama am ci yow yaakaar bi ma gisee mu génnee album moom mu ñëwaat fekk ma juste ci bunt kër gi daane ma yaay da ba dégg nga lu bees ma déglu déglu ko ma déglu ko rek njooy tayu ko sax ah. waaw seen géwél yi da ngeen di daane lante ah waaw da ngaa bëgg ay way ku mën a way nag waaw dangaa ngaa bëgg ay woy bëgg ku mën a woy bëgg ku mën a woy waaw Cheikh dama woy <laughs> eh? eh? bëggi woy bëgg ku mën a woy waaye bëgg ku mën a woy dëgg la moom dafa mën a woy te ndaanaan dëgg daaneel ko yombul de déedéet ah. man ci fi ne ci ndaanaan réew mi ñu may daaneel dama koy lim maanaam yow fi nga toog mën nga xam défaut bi ak ak ak technique bi ak diw mën na wala mënut Mor Mané mais daf may seede chaque jour hmm. nit day génn ñu ne ak mën ak a mën hmm. ma génnay défaut xam nga moom moor. parce que mm-hmm. man ki ne laam daf may def loolu moom xamul keneen xamul woykat yi. man ki ne laam daf def loolu. waaw damay ñëw fii woy. Mm-hmm. pare mu woo ma téléphone ni ma tey li nga yéeg ci kaw dafa bëri. moom ki ne laam moom ki ne laam. ndaanaan la mm-hmm. daba se eh tey li nga yéeg ci kaw dafa bëri aussitôt nga yéeg aussitôt nga wàcc ah. corrigé ma. su ma demaatee beneen plateau wala ma toogaat di woy sama xel nekk ci moom ma def li mu wax ma rectifié ah. donc xale yi sa rakk yi sa doom yi noonu nga àndee ak ñoom ndaanaan la macha allah wallaay ndaanaan la macha allah dama ko dama ko démb rek gisante nañ man ak moom ma ne ko maa ngi bég waaye loo dolli ma jël voilà ginnaaw nag jamono bu ne ak la cay xew <laughs> Moustapha laa bëggoon mu woyal ñu tuuti mm. après euh, dina ñëw moom itam rapidement mm. joxe euh, message déwénateem ci plateau bi mm. ñu doog a àggali guddi gi kon Moustapha bégalal sénégalais yi ca Chimila nous sommes en direct bu leen ko fàttee Pape Samba na lépp yi gaaw Aïcha na lépp gaaw bu ko defee Africa United foog ñu bravo kaay toog ñu waxtaan euh, ñu waxtaan tuuti El Hadj ko gisee naa Baye Cheikh am mbégte rek ak contentement. Uh-huh. maa ngi lay ziar sama jarbaat. Uh-huh. di wax na daal jaf bi nag na ko yokk na yokk safara si tuuti Baye Cheikh. waaw na yokk jaf bi tuuti waaw <laughs> daal dëgg dëgg Moustapha bul tey daal. xale bu mën a dafa yaru nag teg waaw yaru bi <laughs> tamit xam nga yaru tamit dafa doy waar. waaw waaw yar dalee bu yar bari. thinking, work together, I keep on working, as you have to do, go and improve, I still in the gun. nga xamante ni yaa ngi leen di bégal euh, depuis nga commencé sa carrière lan lay doon. jërëjëf Moustapha. Mmh. dëgg la moom Maodo ay wóor ah, la xam nga Maodo nag mooy Sénégal. waaw euh, euh, Maodo moom mooy Sénégal xale la mooy mais mais mooy Sénégal. mi ngi bëgg dugg samay garde nag mais mooy <laughs> Sénégal. naa ko wëccëre de parce que Maodo mooy Sénégal. Euh, Maxtaar daf ko recevoir ba pare ne ko yow man léegi il faut jël la ba xaw a wàcc bàyyi garde. wax na dëgg ah na bàyyi na na na yem ci gone la sama xarit la. parce que nag daanaka dañoo bokk na rombee damay bëgg il faut nga wax na ko léegi léegi mais nag loolu suñu borom moo koy def ma koy beral néew di parce que lii suñu fierté ñun lii ñu ñëw maanaam jeexi loolu fas yéene ci at rogalaatal loolu rek incha allah di nuyu sama yaay aussi di ñaanal sama papa yàlla suuf ay ci kaw di déwénati ñëpp di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq Sénégal yàlla fi jàmm sax sax sax sax dañuy sama fans club bi tamit sama famille bëri maa leen di nuyu ba Gambie fu ne nag ñoom ñooñu dooleel déedéet bu baax ak micro bi ils disent que c'est les aléas du direct mais nan ngay gérer bi affaire bi génneeg léegi yàggul nit ñi xam la bëgg la baat bi neex macha allah depuis petit gàlle ba nii nga tàmbalee sa carrière solo noo koy gérer entre yow ak public bi. c'est pas seen ñu génne dara ñoom ñu bëgg mhm. ndax ay xale la mhm. ay jeune lañ que yàgg na nit at nit nekk fi génne lu gën a neex lu ñu génne mhm. maanaam nit ñi dégluñu ko mais du suñu mën-mën xëy na suñu borom la neex rek ñu génne ko nit ñi bëgg ko aimé ko deux mois. mu yegg si ay deux millions de vues. mais loolu sant yàlla ñëpp ñëpp la. macha allah ak liggéeyu presse art aussi. Uh-huh. liggéeyu tonton Ibou. Uh-huh. Tata Ngoné ak équipe presse art yëpp. Uh-huh. may beral nuyu aussi Tata Ngoné suñu yaay parce que nag. peccum liir neex na buñ ko waxee nday jaatee ci mbëgg yi moom moo ñu moo ñu moo ñu jàngal li ñuy def. lu nekk ci ñun moo ko def ci ñun. ba ci yar gi ngay wax. maanaam même boo booy toog plateau sax danaan eh ñi ngay toogee. je me bi may gën a dama daan sol ay jiin de yéene yooyu noonu su ma ko rombee rek mu ne ma eh, <laughs> rombee ba dama simi ko ba dem maanaam maanaam da lay éduquer ah. ñu koy ñaanal mu yàgg fi trop ah. trop trop parce que bu fi yàggee suñu njëriñ la ah. mais nag yi ci kanam muy dax lan mooy lan mooy projet yi yaa liggéey ak ñoom ci projet yi waaw ñu ngi liggéey ak ñoom ci lu gën a yaatu incha allah mhm. d'ici quelque temps rek incha allah gars yi dinañ koy gis incha allah d'accord bàyyi sa sa yaay daba sëy am lu mu commenté ci yow ci sa kanam balaa ngay dem ñuy àggali. Euh, euh, loo koy dénk. li ma koy dénk rek mooy yar bi am na solo. yar bi gar mm-hmm. lu am solo la xam nga important. waa éducation de base. Mm-hmm. day refléter ci lépp. dëgg la xam nga nit di nga juddoo ci famille. Mm-hmm. nin la yare loolu faaw muy des ci yow. waaw du daj parce que xel xel li ci njëkk def ci des. dëgg la éducation bi baax na. xam nga lu am solo. garmi li may wax tout le temps. Hmm. mën-mën bi rek. mën-mën lay bës ak yëpp bës ak yëpp day day jaar jàll. waaye gis nga ki mën. toujours day des ak mën-mënam. dëgg waay ci bi muy talent bi rek Pape Cheikh. dëgg la mën-mën rek. bi. Hmm. dëgg la waay yar beeg yëpp. Hmm. boo nekkee sur scène ah, jël na ko defe waaw ah, boo nekkee sur scène. mën nga def affaire artiste. mais du tey boo paree nga garder waat sa. Mm-hmm. éducation de base mm-hmm. Mm-hmm. dafa am solo waaye lii des ci yow mooy mën-mën mooy mën-mën bi xam nga ay bësëg yooyu dama ko compte xam nga daba wallaay daba ah. ñoo bokk xalaat wallaay dëgg la am na ñoo xam ne ñi bu su bruit amul duñu bokk waaw ci bruit rek lañuy lañuy lañuy mais mën Baye Cheikh waaw suñu la nee pëkk pëkk ci nelaw sax boo jógee rek li la sant nga def ko waaw nit day polyvalent et puis mën mën sax mooy wallaay wallaay mooy tax nga def vingt ans de carrière talent mooy tax nga def quarante ans de carrière Youssou Ndour ba léegi mi ngi way. ba léegi mi ngi way. Salif Keita ba léegi mu ngi way. wallaay Kiné dafa toog sama digg Kiné ba léegi bu woyee da nga naan da nga naan mais kii dafa dox dafa ñëw ci kër gi may def anniversaire grand théâtre mm. Mm. mu ñëw ne ma tey yow laa seet si moom Kiné Lam moom Kiné Lam mi ngi may mm. seetaan ñëw sama diggu laal toog ni ma def naa 30 ans de carrière wallahi lépp anniversaire laa ko def ou plus 40 ans de carrière boobu 30 ans 30 ans de non 30 ans de anniversaire mm-hmm. 31 anniversaire. Mm. def naa ko. Mm. ma ne ko ah mu ni ma waaye musuma wut buzz. boo mënee doo soxla buzz. Mm-hmm. ba pare ni ma ne dafa am lu am solo ma ne ko ah mu ni ma nit bu mënee. Mm. fu ko fekk mu wane mën-mënam. Mm-hmm. boo yéegee grand théâtre na nga woy billaay billaay xam nga loolu ñun dañ koo soxla parce que mm-hmm. <laughs> léegi nag man damay profité sama rakk yi fu ma leen gis rek ci ni nga amee woon ci ñoom kinelaam noonu nga koy joxee xale yi fu fekk lu mu gàtt gàtt mi ngi nii dama koy encouragé. Mhm. Moustapha da nga war a way de. wallaahi. da war a way bu ma gis nga am gel dëgg la bu ma la gis nga taxawaal dama la way bu sol ji déchiré comme ni la ngoonee wax ca parce que loolu lañ la ñu dëgg la mbay am solo xale bu important xale bu yaru la barki démb fekk naa ko Paris ci euh, Bercy bi mais uh-huh. siggiwul sa xool nit ñi moo tax maa ngi ñaan Sénégal yëpp ñu ñaanal ko nañu ko ñaanal yàlla lafal ko cat mu continuer carrière bi parce que ñun tam dañu soxla relève nii ñu amee ndaanaan yu mag yi ñoom it euh, dinañu dem ba jëmmi jamono xale yi rek ñoo mën a assurer relève bi te defe naa moom mu ngi ci yoon bi Moussa Fall lan mooy nekk message bi balaa ngay dem <laughs> waaw xanaa di di déwénati ñëpp rek uh-huh. coow li coow li léegi mu uh-huh. leer coow li ci bëtub teen bi gaañi amul baag la am nga baag del baawal gaañi soxla yaa jara wóolu ma ñëw wér la may sa xarit daaro xarit yeey xam nga lii neex na yàlla na yàlla yi baale ndeysaan eewa yewenati leen Eh. nanu bette ndege ni déwén yaay booy. seetetet. petum li si ay bàyyi cheikh ne jaatee sa mbagg yaa ndeysaan ba tax na coow li coow li léegi mu leer <laughs> coow li ci buntu teen bi yow gaañul baag la am nga del baaw gaañu soxla yaa jara wóolu woyul woyu xale de. ah. xam woyu xale mën na waaw mën na mais woyul woyu xale macha allah Moustapha. bég nañu ci yow. yal na àgg. amiin amiin amiin Mbaye xale yi dañu mat euh, euh, dañu mat a jàppale. Mm-hmm. ay royuwaay lañu. Mm-hmm. xam nga Baye Cheikh musique dafa métti. munoon naa defi leneen lu dul li muy def. Mm-hmm. mais soo bëggee musique. ba pare nga correct. surtout xam nga correct moo la yóbbu biir si. soo ko rek lu doy dem dëgg la dëgg la la moo xew dëgg la ngoone mukk du ko def mukk ci mm. soo jàllee mu redressé la mm-hmm. xam na ne réew mi am na mm-hmm. a mm-hmm. euh, sa sa conseil tante <laughs> naa ne mu dama moom bëgg na la moom waaw merci Moustapha et bonne chance pour la suite. on est très content. voilà kon ñu àggali euh, guddi gi euh, Daba Seye di nga ñu woyaatalal di nga ñu woya di nga ñu woyalaat léegi nii. Euh, ci seen bi parce que yaa ngi ànd ak sa groupe. El xanaa ñu ndokkeel sunu xarit yëpp rek ak fu ñu mënti nekk ndax ñu ngi bégee. waaw xanaa Baye Cheikh ndokkal maam Ami Niang mhm. ma ñu dénk Cheikh Makhtar Diouf. Mhm. mu président Abdou Diouf. Mhm. Yacine Gaye Massar teneen Gaye Massar. Massar aru ndawal buru xëriñ mu ci tool pero. Mbagnick Yacine Baba. maam ami ñang moomu mu kura fa binta jéeru kura bis mi ci fitali ci jambal ñang ma kura ba ma ba ma cangee ca ca Maroc ah. moo moo fukki mètres yi moo ko moo ko yónnee ma ne jox leen ko téer bi mm-hmm. moom laa def nii mu def nii <laughs> maa ngi koo ñaanal ñang yàlla yàlla amiin amiin Abdou Aziz Ba mu alaaji moom la Baye Cheikh am mbégte nag lool ci Mamadou mm-hmm. Niampari dool mm-hmm. Balla Gaye madame Thiam Maysa Gaye madame Thiam Famay ku ne xam ne sama diggante ak moom Baye Cheikh ñeeñoo boobule. Mhm. koo gën gisuma ko ci moom. da nga yàgg ak moom. lool <laughs> bàyyi Cheikh te lu yàgg dëgg la maa koo ñaanal yàlla guddal guddal fanam. amiin ak Fatou Gueye mu baax moomule. macha allah di wax ne nag du ma wax mukk romb te sama xel du tàbbat ci Makhtar jow mhm. du xew. Mhm. bàyyi Cheikh. ak gën ci ak a baax. ak yiw bëgg ma famille bëgg ma. ndayam ñi ma nday def ji ma jur noonu la ma ndayam def. macha allah. kon Makhtar maa ngi ko gi rek jël billaay kenn du moom Baye Cheikh ah, Baye Cheikh Baye Cheikh Baye Cheikh dafa am ñoo xam ne ñi ne soo leen xoolee ca kaw nga leen di xool mm-hmm. du ñu bëgg nga tardé mm-hmm. du ñu bëgg nga xiif mm-hmm. du ñu bëgg nga rafle du ñu bëgg tubaarkàlla nga war lu bon Baye Cheikh. Mhm. dañuy bëgg toujours ngay am sax da ngay droitier <laughs> ah, waaw <laughs> <laughs> te doo ko romb donc dama dañ lay bàyyi nga dellu ci scène bi. Mohamed Abdallah Thiam sa càmmin. sama xarit ki la bëgg lool. Eh, kooku nee na mu ngi bëgg sa teewaay tey ci euh, télévision Futur Média. Cheikh Mohamed Abdallah Thiam sama sama mhm. sama mag. Mhm. waaye sama jëkkër. ndax frère la ci moor. macha allah waaye sama xarit. sama xarit la nit la koo xamante ni sama diggante ak moom. Euh, weesu na sax li li ci ci diggante mag ak rakk rek mhm. nit la koo xamante ni mu teddale Moustapha mhm. man noonu laa ko noonu laa ko jàppe mhm. xam naa nit ku bëgg yonent bi la yeneen man yonent bi rek laa ko xoole nee naa ko fexe nga ba ndaw ñi mujjee judd ñëpp bëgg yonent bi ndax moom bu tàntalee nabi mooy berndeel boppam su wootee ci rasulillahi ku ñëw dama naan moor kii dina sonn parce que bëgg na ku ñëw mu accueillir la nuyu la dalal la ah. te loolu yonent bi rek moo ko jàpp waaw donc moom ñu koy ndokkee bu baax. dafa ko doon nag baay Cheikh. Mm-hmm. Mm-hmm. daf ko doon ci baayam bu baax bi. Mm-hmm. baayam bi noonu mu def noonu la daan def. lu mu am waa ko Rasulaay la ko jox. looloo tax dëgg-dëgg bi mu julee bi mu juree gors su baax soosule fierté la doon ci moom. Ah. baay bu baax nag dëgg-dëgg. sooy seete ki ko doon moom moom moo doon baay. wallaahi dëgg la yoon tamit la bëgg. ak baax ci am dëgg lool. moom El Hadj Bassirou grand seigneur de lu ñu am dañ ko jox Rasulaay. sallallahu alayhi wa sallam xam nga ci gàmmu ren la ma may kër. macha allah loolu for ren gi ci gàmmu gi ci gàmmu ren gi ñu génn la daan def la ma may kër daan def ni ma tabax naa ko jox la ko addiyee rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Mouhamadou Abdoulaye ko baax waaw te nag soxna yi yàqu ñu ci dara mm, macha allah bàyyi tax ak nura wallaahi dafa baax sama waay la kon ñu bàyyi la nga dellu ci seen bi euh, parce que dañoo bëgg ay woy <laughs> voilà ñu dañoo bëgg ay woy te daba sëy daba sëy lu toll ni guddi tabaski mu ah. leen di woyal <laughs> loolu defe naa mbégte la pour yéen téléspectateurs yi di ndokkeel euh, Pape Lam image yi ñu seetaan sànq ci IGFM moo nu ko defal euh, Mouhamed Dibi Thioy nee na mu ngi ndokkeel euh, Daba sëy ak euh, Mor Mané mm. di ndokkeel itam Adja Touré mu Adja Ning mm. yaayu Awa Gueye fàttewuma ndaak ak suma xarit ci nga xamante ni ñoom laa fekkoon Dubaay Jatulay mm. ak suma sëriñ Pape Lay Faye fàttewuma itam ki nga xamante ni mooy ndaak neex a fekk Dubaay ak suma fans bi Fat Dieye ñoom ñëpp ñu ngi ànd ak ñun ci guddi gi tey ci télévision Futur Média di ndokkeel ndar-ndar bi euh, Mame Fa Gueye Ba costumière bu mag boobu ñu ngi koy euh, déwénatil euh, tey ci guddi gi ci télévision Futur Média Daba Sey lañ leen di bàyyi laatal mu bégal ñu en live ci télévision Futur Média. waaw Chéri Mbargo ba jaar nii la Soda Faal sa yaay Asi Jóob bàyyi noonu <laughs> doo ñu bàyyi noonu de <laughs> yéen tamit bëgg xam naa ni bëggu leen daba sey bàyyi ñu noonu tey doo ñu bàyyi noonu. doo ñu bàyyi noonu hélas waaw. bàyyi dama yokkul dara day déedéet. dama cuubul. déedéet. billaay mbay bu wooyee nga xam ne ndaanaan moo. wallaay ndaanaan ay wooy tey képp koo xam ne ki la yaa nga jàkkaaroog Futurs Médias. Mhm. télévision bu mag bi. Mhm. xam nga ne dëgg dëgg eh, ndaanaan ndaanaan ganesi na ko. wallaay ndaanaan ganesi na na dolli. na dolli kay na dolli beneen bay na dolli bégal ñu ñu bégal téléspectateurs yi ak fu ngeen mënti nekk déwéna li nag ñu ngi continuer di ko séddale donc continuer leen di woote ci numéro yi nga xamante ne ñoo affiché wu ci euh, suufu écran bi Pape Birima Mbuub xam naa ni sa jigéen bi euh, ngay gis yaa ngi ci kontaan ah, sala tàkko xaagaan bi koor Kumba Sarr ñu ngi lay ndokkeel bu baax moom it daanaan bu mag la euh, mbokk Euh, moo bëgg na bu bàcc lii hmm. euh, Pape Birima Mbuub di ndaanaan bu mag ñu ngi koy wara borom anniversaire bu réy bi <laughs> ñu ngi koy ziar bu baax di nuyu tamit euh, fan su daba sëy bi nga xamante ni mu ngi Manchester hmm. nee na mu ngi nuyu mu ngi bëgg ci émission bi lan la Aïcha moom nag fan su daba sëy la ca Manchester hmm. nee na mu ngi kontaan ci déwénati bii tey nga xam ni dañu koy bégaleeg daba sëy ndaanaan li kon daba dañ lay bàyyi nga continuer ak spectacle xam naa Baye Cheikh di la wax nag Marème Fall. Mhm. ca moom tam nee na bég na kontaan na ci Daba Seye. Casablanca waaw Casablanca. Nabir. Aïcha. seen yaram ba tàng waaw waaw macha allah <laughs> ñu ayca kon ñu ñëwaatal ñu toog tuuti après nga dellu bu ko defee ñu mën a euh, ñu mën a àggali guddi gi ci euh, télévision Futur Média fàttaliwaat leen ni ñu ngi ànd ak euh, Wave lépp loo xamante ni jëm na ci yoon yónnee wala jot xaalis Wave mu ngi ci et bëri na ay créneaux yoo xamante ni Wave daf ko jagleel ay kiliyaanam donc Wave mu ngi leen di ndokkeel ci tabaski bi ñu ngi ànd itam ak euh, bouillon kat yi nga xam ni Sénico moo ñu ko jagleel tey toute la journée jeg ji moom la ñu safalee seen euh, seen lakku yàpp euh, donc Sénico ak bouillon bi di kat yi mu ngi leen di ndokkeel ñu ngi ànd itam ak bijouterie bi di samsam ñoom nag seen spécialité mooy jaay bijou bijou en or voilà 21 ba 28 carats depuis plus de 50 ans ñu ngi fii ci Sénégal bu ngeen demee marché Tilène fekk leen fa Euh, deux semaines yu ne ñu am arrivage yu bees donc bu ngeen bëggee am ay bijoux en or exclusivité nésité surtout pas ngeen contacter ki nga xamante ni moo di euh, Omar ci 77 462 41 41 El Hadj. Baye Cheikh xanaa di bëgg rek nag ak di kontaan. Mhm. di wax ne Sénégal yëpp bég nañu. Mhm. waaye rawatina nag sunu doom ju baax da nga xam ne nii ma nga ca néegu New York. ñu koy mhm. wax Maodo Guèye. mu faatu Mbuub. mu aji na koy mbay màgget mm-hmm. géey jur ko mbokkum ndeyum aram géey mm-hmm. Guèye Barouk daam nee na kontaan na lool. Fatou Mbouba nga ca États-Unis maa nga nuy seetaan. Mhm. nee na bég na. waaye di wax na tamit euh, euh, Baye Cheikh Oumy Guèye Garmi nee na kontaan na lool. ah moom moom moom moom moom. ci daba ci daba ci jabaru géwél dëgg dëgg ci daba sëy <laughs> day dégg day dégg. ak sama goro yu baax yooyu nga xam ne nii tubaarkàlla lu ñu lakk defe ne maa ko a wallaay ñoom ñëpp maa ngi leen di ndokkeel di leen ñaanal jàmm lu bëree baax. waaye gis farba sa sët bi gis farba lay lay la loolu loolu loolu dëgg dayu ni leneen dayu ni <laughs> dama ko wóolu ba mu ñëw ma ne ko toogal mu toog bi moo ñëw moom laa tuddee Lamine Thiam Ndoko faral lam bu mag boobu la. ah d' accord ma ne ko yow Lamine mu ndaw la ko waaw Lamine mu ndaw. ma ne ko yow foogoon ni ci xale yu ndaw yi la rek noonu. non Lamine ah ma ne ko yow Lamine. jikkoy turandoo bi la yor. ma ne ko yow Lamine yow nga ne Farba Ngom ñëw ne fii fii ci. Euh, daral bi euh, fii ci daral bi. <laughs> mu ne ma waaye ñëw na papa ay une heure du matin la ñëw. ma ne ko foofu fan laa nekkoon mu ne ma yàgguñ ci biir mu ne ma danga doon nelaw ma ne ko dooma yi dëgg dëgg <laughs> yow mais ma wóor kër ne kii dama ko war a yeew dama ko war a yeew dama ko war a porter plainte rek <laughs> <laughs> waaye tuwaar kàlla ba yëfi rombe tamit ba Farba def na mu daan def Farba dafa baax nit ku yàlla baaxal wallaay dafa baax Baye Cheikh mm. ni mu àndee ak président dafa nekk lu rëy ba pare fonk nu nun kon jaari bàyyi jaari waaw lu jaar ci moom tàbbi na ci nun wallaay wallaay ko ñaatam yàlla guddal fan di sàmm ko Baye Cheikh wallaay wallaay wallaay Baye Cheikh dëgg dëgg réew mi daal réewu jàmm la wallaay réewu jàmm la yàlla fi yàlla dolli jàmm Baye Cheikh tey guddi jàmm sant la moom la daba say ibbee léegi nii waaw waaw ñu ñaan jàmm sax ci réew mi dëgg la Baye ñu waxante lu baax tax ma ma def blanc rek ci guddi gi pour ñuy waxante lu baax maanaam lu dul mbaax mbaax a ko gën sànq ba tey loolu laay ci loolu laay su mm. sunu soppee yi nag ak fu ñu mënti nekk ñu ngi kontaan ci ñoom euh, di euh, ndokkeel euh, Ibou Diouf moom journaliste la fii ci télévision Futur Média mm. bind na livre ba noppi itam dafa yëngu ci wàllu culture waaye sànq ba tey mu ngi may wax ni mm. mu ngi bëgg lool mm. parce que dafa bëgg baatu Daba Seye nee na Daba Seye mooy woykatam mm. Ibou Diouf journaliste la fii ci euh, télévision future Média ñu ngi koy ndokkeel bu baax di nuyu tamit euh, Vieux kase ak équipe yu Kayfa nga xam ni yére wolof bu ma sol euh, waa Kayfa ñoo ko defar donc ñu ngi ndokkeel Vieux Kassé ndokkeel itam su ma rakk ci jum ak ñi mu àndal ñoom Raphaël ak ak équipe bu Kayfa yëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel di leen ziar Euh, Ndeye Touré moom tamit euh, mu ngi ànd ak ñun ci euh, guddi gi ak fu ngeen mënti nekk daba sëy ji leen bégal mm. daba defe naa yaa ngi ci projet yu bëri uh-huh. ay ay ay spectacle mm-hmm. xam nga léegi li leen sonal loon dem na <laughs> covid waaw covid dem na léegi tournée yi reprendre ngeen ko concert yi reprendre ngeen ko uh-huh. sortie album yi reprendre ngeen ko mm-hmm. lan nga prévoir dëgmal pour sénégalais yi waaw Baye Cheikh nag instant bi ñu ngi nekk ci projet bu mag mm-hmm. xam nga comme covid moo ñu tëjoon def naa grand théâtre ñëw na yu ma deful mhm. mais tey dañu am projet boo xamante ni mhm. vendredi lay nekk samedi dimanche weekend weekend ak ndare production ak ndare production eh tey dañuy jël grand théâtre uh-huh. vendredi mhm. jël King Fahd Palace samedi jël teeru bi dimanche xaa dina am tànn bi da nga bëgg moom tànn ko ci yokk rek jeudi bi <laughs> ci jeudi bi jeudi moom tànn biir mënul ñàkk moom sa buntu kër <laughs> comme ça le lendemain ñu dem grand théâtre jóge fa dem King Fat Palace uh-huh. loolu ça va être magnifique loolu gis nga ci ñetti fan mu mel ni festival mu mel ni festival lan moo tax nga bëgg a def euh, spectacle euh, pour ñetti fan waaw xam nga boo gëjee boo nekkee cim réew ñëpp bëgg la mm-hmm. ci am lu baare woon sa diggante ak nit ñi muy mm-hmm. feebar bi fi jàll covid bi kay yàlla na dem lu bëri ñaari anniversaire ñaari anniversaire ñaari at ok xam nga à rek dama ci ànd kër gi. Mhm. Mhm. Mhm. saa yu ma ñëwee rek li may wax mooy. wala c'est bon li fii sa kër la. dëgg la da fee am wàll. rafetal ko ba rafet. ñëw ak équipe bi yëpp. kon bii tamit incha allah dina ñëw. incha allah du yàgg dara dina ñëw. mais nga ci toftal album. wa album mooy jiitu sax que saa yooy saa yooyu saa waaw faw nga def génne album wala single nii nii nii après ñu doog a dem doog dem grand théâtre nii nii nii may wax ak yow nii sax nag mhm. ñu ngi waaj a dugg studio xam naa ci semaine bi rek incha allah ñu ngi biir studio mhm. pour def album tey douze titres mhm. parce que nag toogaay bi yàgg na topp mariage yi ak tukki yi rek waaw fan si namu nañ ma <laughs> ñu ngi ci album boo xamante ni projet wu douze titres la incha ñoo ngi ci bu soobee yàlla lan ngay wax euh, sénégalais yi nga xamante ne ñoom ñoo la bëgg sa fan si sénégalais yi nga xamante ni ñoo lay ñoo lay ñoo ñoo lay dund bari ki démb rek. Mhm. bi ngay mayee sa doom. Mm. sénégalais bu ci ne. Mm. dafa jàppoon ni moo mayee doomam. wallaay ndeysaan muy relation bu particulière boo xamante ni Daba mm. Seye. da ko am ak sénégalais yi. Oh. depuis nga tàmbali sa carrière. wallaay Baye Cheikh xam nga li ko li ko li ko li koy mayee rek. yar ci la bokk. xam nga nit. boo respecté sa bopp déjà da ngay respecté ñi nga sëkkal àdduna yëpp. dafa am solo. respect mi ngi njëkk ci yow soog a jëm sa diggante ak nit ñi nit ñi bàyyi ñoom ñoo ma bëgg seen bopp ñoom ñoo ma bëgg rek teg ma foo xamante ni euh, aw ma sañ-sañu yenn saa yi du la bett waaw bëri na daf lay jaaxal daf may jaaxal gis nga tout récemment rek damaa jógee Italie mhm. nday su laa daroon ni ma woy nii mhm. awa Thiam moo yóbbu awa Thiam ñu bokk dëkk xombol awa sama jigéen la am mam Binta Thiam mhm. la mancelle di ko fekk Washington saa yi ma demee Amérique noo def ma seeti ko saa yu ñëwee fii dina añ si ak man macha ànd bu yàgg la depuis xale mhm. mais ñoom ñu xam ko nag maa jigéen mhm. ah, ñoom ñëpp xam ko déjà jël ma fi yóbbu ma Italie man ak Fallou. ak Mor. ak groupe bi. ñu dem jouer foofu moom ci staff bi la bokk bi la bokk su ma ñëwee def naa ma sama cachet. dëgg bu ñu noppaloo deux jours mu ne ma dabana sama cachet. maa ko gis <laughs> mooy jiiteel yaay ji dama ko fekk fenn ko Mor mais Fallou moom loolu. la bokk. rek mu ne ma sama cachet. <laughs> Pape nit ñi sama diggante ñoom bëgg ma rek. xam nga démb laa laa laa yëg émission bi. Mhm. daal di woo Baye Modou kan ni ko lu may sol. mu ni ma mu ni ma no wool Marianne Mendy njaagu sëñ Fall. ci brodé yi. mu jox ma brodé boo xamante mm-hmm. ba dee moom noonu la mel. Mm-hmm. Mariane Mbendi mm-hmm. ndindi kër kër Galas ndindi kër Galas. defe naan loolu ñëpp xam na ko ñëpp ko xam mos wallaahi. doomu day Aji la solution nekk nit ku baax nag Aji Thiam. da daf naan ma daba sëy jigéen dafay am takkaay. Aji dafa mel ni yow. ak baax nangoo sëy ànd ak jëkkëram rek. nangoo sëy jàppale Ibrahima lool ma ak jëkkëram rek ànd ak jëkkëram te nag dama lay wax lu garaaw mhm. gorom daf koo gërëm ak jàmm dafa ànd ak yaayam ji ko jun gërëm ko ñaanal ko dafa soutenir borom këram daf may faral di wax daba sëy fi nekk pap lu ma liggéey damay daw jox ko mhm. su matee rek ma jël sama yëf parce que xam nga dama bëgg a takkaay mhm. yii yëpp moo ma ko jaay yii yëpp moo ma ko jaay boo waxee mu ne ma daba jigéen dafay am takkaay wax na dëgg grâce à Lia mhm. jëkkëram mhm. jàppale ko waaw ah, waaw boo ñëwee grâce à Lia ah, fa nga koy fekk mu <laughs> toog géréel Ibrahima kontaan naa jigéen nit ñi man mhm. jigéen ñi sax mënu ma leen fay xoole bi may maye sama doom pam man def ci gis seen bopp ba nii may wax defuma dara moor moo maye ba nii may wax moor parce que xale boobu bi muy am 6 ans la sëy ak moor waaw ah, mooray bàyyam mooray bàyyam moor la xam mooray bàyyam ba tey mu toll ci ñu maye ko moor oo sëriñam Cheikh Abdoulahi borom tawfeex mu ne ko maa ngi koy mayee foofu ci ko ñu naan sama kër maam surtout sëriñ Tuubaa ko maye waaye xale bi jaar na ko nag xale bu yaru laa maye macha allah mm. xale bu baax ci man macha xale boo xamante nii jikkoom mën na ko may lu nekk mm-hmm. papaam ji teral ko nag mm-hmm. maye ko maye gu rëy mm-hmm. ndax xale mën nga ko bañ jur sax mhm. waaye def ci moom jikko yoo xam ne mhm. amaana baay bi ko jur bu nekkoon ak moom du ko def ci moom mhm. moor Pape Cheikh bariwu ma wax ñëpp am seen jëkkër yi di leen sagoo waaye dafa jaar ak man foo xamante ni ku fa jaar ak sa nit nii rek laay mën a def nga gërëm ko fekk la ak ñaari doom yoral la say doom yiiral la say doom fexe ba say doom doxewuñu kenn xàmmewul xaw ma fa góor gu baax ko ko mën góor la. Hmm. dëgg la waay moom mention hmm. ma toll di ko wane. ma toll di ko tudd ndax moom ko lebal. nga jëlal jëlal micro bi yaa ñu wax lu am solo. li may wax dama li ngay wax dama bëgg ñu dégg ko fu ma hmm. toll damay woy moor. fu ma dama koy tudd kii ñu may bi mu am 6 ans laa xamante ak moor. mu yiiral ma sama doom yi rek. imagineel xale lu góor bu rafete ni moor. ñoo fekk am ñaari doom. nga jël ko jël ko ñii bëgg ñii bañ. ñi naan Mor Mané ki mu takk am na ñaari doom. Hmm. ba tey xale boobu nga maye ko ubbil ko Masaalikul Jinaan kër Serigne Bamba def lépp man ba nii may wax ak yow ma dara. moom moom maye maye jàkk te hmm. ku ma xam-xam ne damay taral sama doom. Hmm. dëgg la waaye mention spéciale. jigéen daal booy tànn tànnal góor gu baax. tànnal góor goo xam ne da fekk un yóbbu la mille. mu loolu la ma defal. dafa fekk un. yóbbu ma mille waa Pape lu tax may reculer di waxaat ak waa un man non jamais aw ma temps boobu ñee ay kilifa lan mhm. ku leen gérer mhm. nekk jigéen ba pare gérer leen mhm. waaw sa xel du nekk ci yenn yi da nga war a doxal nekk ci kanam am loo xam am loo bëgg am foo bëgg a jëm kon mënumaa mënumaa bëri wax déedéet en tout cas jàppale na ma ci sama njaboot macha allah loolu loolu du lu am solo El Hadj euh, Baye Cheikh Daba ñu ngi koy ndokkeel nit defal la dara nga reconnaître ko yombul. Mhm. bari na lu xew ci réew mi. Mhm. su cappaandaw gi àggee. Mhm. leneen la ñu doxale waaye nii mu def jël lépp delloo ko waat dëgg-dëgg jëkkëram ju baax jële loolu dëgg-dëgg ci baax la bokk. waaye nag loolu daf nag moom daf ko doon. Baye Cheikh nit dafay gore. man de mën naa ko seere. nit dafay gore. ci bisu takk bi. waaw laa xam ni moor juru ko. wallaahi bi ma koy yëgal. daf ma woo. ne ma sama doom laay maye. wallaahi dëgg la ci noonu la ko yëgalee ñëpp noonu la ko yëgalee ñëpp loolu moom mën naa koo seere noonu la ko yëgalee ñëpp ak sama nopp mhm. barki borom Touba waaw gis nga xale bi mhm. bi mu wàccee ci oto bi rek bi ne koy ban genre jëkkër nga doon ñaan yàlla daf ni bu mel ni sam papa Mor Mané imagine loolu gar nga yar xale bi mu amee 6 ans ba mhm. mu mët a sëy nga maye ko ca dóoroo saagawoo xasoo lu dul di jox mu lekk ba suur. di mm. fayal ndox di fayal courant yore ko. yore ko mu rafet. waaye kooku leneen lu mu def lu dul lii mu moor lii mu def ak moor. dëgg la day gore ji. waay dëgg la ca man yaayam gor laa. foor la bilay bilay. li ma xam bari na. Mm. li ma denc bëri na. Mm. waaye dara lu ma wax ko. di jaajëfal sénégalais yi nag. ndax commentaire yëpp gis naa ko. wallaahi jaajëfal naa leen bu baax. Ah, waaye. Cheikhul Khadim sama yaakaar. dafa jógee géej ni baal na ñëpp. dëgg la waaye baal naa ñëpp. <laughs> jërëjëf Daba. man daal teg Daba daal xam naa daal yar bi ak teggin. Ah. ak ngor gi gi won woon Sénégalais yi. Hmm. te mu nekk ci sa biir. Hmm. tey gën na feeñ. Baye Cheikh. Hmm. loo gis yara koy kulóor. moo tax anniversaire am yooyu mu dëgmal. ñetti fan di ñetti fan. incha na ci seet nag président Youssou Ndour nag def ko président d'honneur ci yëf yi. ndax nawle bu ma sa teew ci bës wala nga tëgg lu mel noonu fekk si na la am lu mu def ak yow loolu nag dox ko gis nga bi ma ko njëkkee def loolu ko bi ma ko njëkkee def hmm. damaa toog rek maradien woo ma maa ngi répétition dëgg la daba foo nekk hmm. ma ne ko maa ngi nii répétition mu ne ma ah président moo ñu boole de ma ne ko kan mu ne ma sa frère Youssou wallahi ba léegi enveloppe bi dama ko denc souvenir boobu mu ngi nekk ministre de la culture culture yónnee ma xaalis bu weex tàll bu bëri hmm. moom sagu réew mi la. billaay ñu koy ndokkeel ci guddi gu mag gi mu jógee di Bercy. Mm. nga xamante ni Bercy. sagu Sénégal yëpp la. wallahi sagu artiste yëpp la. Mm. teraangay réew mi yëpp la. Mm. Youssou sag la. Youssou nit la koo xamante ni réew mi soxla nañu ko. moom maa ngoone Yacine Mar ak Birahim Yacine Mar Mbourou Mbour Ali Ndiaye Diggi ma ca band dañ si rek jigéen. moom sagu artiste yëpp wallaay wallaay Bercy bu fa taxaw taxawal nga artiste yëpp waay moom. Mm. mooy suñu hymne national mooy sagu Sénégal waay waay déggal ah, koy wax ndax moo am. guddi gii may waaj nag moom. Mm. comme loolu nga wax rek. waaw waaw damaa soxla mu ñëw. ah loolu daal dëgg dëgg. damaa soxla mu ñëw ñëpp jàpp ñëpp ciy jàpp kay lay ah, doon samedi samedi dimanche. incha allah ba dimanche ci ñetti fan yoo xamante ni Daba Seye bëgg na ci bëggal euh, Sénégalais yi affaire de ndaanaan rek nag monsieur le ministre Serigne Mbacké mm. moom moom mu ngi bëgg. nee ma encourage engagel ma sama doom dafa sëy te xam nga moom monsieur le ministre mhm. dafa di nit ku baax Serigne Mbacke Ndiaye dafa <laughs> uuf doom yi waxuma jabootam de mais dafa uuf jabootu jàmbur ba yenn saa yi man loolu daf may jaaxal bàyyi gis nga li ma dal ci Mara Dieng dal ñu ci Sala Dieng mhm. Mhm. Salamata Saw dal ñu ci Siga Dieng moo ñu dal ci ñoom ñun suñu ñun lay njëkk a nàmp ñun lay njëkk a la lu mu julli rek laa lay nettali mm. doom ji mujj bi dañuy xaar sama bàjjen yaay sëñ Saaliw boobu clinique la bàjjen yéex a ñëw hmm. yenn saa ma jékki-jékki tonton te maa yëg nàmpal ko ma damay bañ mu nekk waykat dama ko baal ma yëg nàmpal kii waay xam nga loolu <laughs> dafa démb la ah, wallaahi moom ca maam Abi Diallo yaayam ji ko jur dama ko xam bu baax ñu bokk hmm. dëkk xombal hmm. bi mu nekkee ministre daf ñu recevoir man ak Mor ci pale bi bi mu nekkee ministre fexe na ba ma toog ak président Ablaye Wade sama nijaay la sama xarit la mm-hmm. sama nijaay la sama deret la sama xarit la mañ seen sengaan njaay bi moom bu ñu juddoo ñun rek la ñu ñaan wallaay bisaan ak mbaar waaw bisaan ak mbaar ñu ngi koy ndokkeel bu baax monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye ah. bàyyi Coro njaay Ndiaye madame Seck. Mhm. léegi nag daba. Mhm. ñun bëggoon nañoo toogaat ba ci kanam. waaye ginnaaw une heure vingt deux du matin dañoo bëgg a ñaani ndéwénal. xam naa ni li ci des. mooy li ngay ci seen bi. kaddu yu mujj yi itam mënul ñàkk. Mhm. pour téléspectateurs yeeg. sénégalais yi. sa géer yeeg sa fans yi nga xamante ni ñoo la bëgg lool di la bëggee fu ñu toll. lan nga leen di wax. xanaa di leen bëggee rek Pape di leen bëggee rek. di am mbégte maa ngi ñëw ak Ahmed si léegi. Ahmed si ne dama bëgg nga xam ko Pape. incha allah ma nga Italie. mi ngi fi nii actuellement. mu ngi Sénégal nekk nit ku baax. nekk nitu valeur. Uh-huh. nit ku mën a sonn ci nitam. Uh-huh. ak nabu ñing nit ku baax ku mu xam. de foog ni dama koo war a xam. loolu mooy loolu cofeel ku baax ku dama say xam il faut mu woo ma ne ma allo naa la présenté diw. naan la paas diw. mais loolu mooy baax il faut xamante ak diw. loolu la nekkee man. Baye Cheikh baax day landi. wallaahi baax du yem ci borom képp. noonu la nekkee ak loolu am déedéet mhm. ak euh, ku ci mel ni Fat Diagne naa si. Mhm. Mhm. Kor Abdoulaat moom nit ku baax la nit ku baax la. sama Fat Diagne la sa Fat Diagne la mi ngi noonu. a ah, Pape. Bali Dieng kor maam Serigne Ndiaye. Mhm. Asi Diop chéri Mbargu Mbargu euh, Badiane. Mhm. waaye nag mention spéciale kii nga xamante ni moom a sañsel ni di Marianne Mendy. Mhm. Talia euh, Ndiago Sëñ Fallou moom yàllaa ma booleeg moom ndax Sëñ Fallou. jàpp naa ne kuy bem rek dama laa war a xam. njaago sëñ Fallou njaago sëñ Fallou mbokk bi ay ay caab madame ñaar bëggi goroom ki njëkkeem eh, eh. nangoo sëy kon aw ma fay. ma fayu sénégalais yi di nuyu nag suñu xarit bi ñu bokk maam soxna loo soxna loo mm. borom sikap karak pale baa ngi fii karak pale baa ngi fii karak sama xarit bi wallaahi yaay keroog ma fi demee dama wàcc rek wooy wallaahi sikap karak la pale bi ne macha allah macha allah pale baa ngi fii karak yu bëri chérif Fallou ah, waaw pale baa ngi karak il faut ñu dem fa jigéen la waaye bëri jom mm-hmm. jigéen la waaye bari jom gan kenn du ko ne boo doon góor déedéet Fallou Touré borom këram day toog rek wallaay boo ko fekkee ak lantaar jëkkëram noonu la koy kañ boo ko fekkee Atlanta. da nga naan ndax kii moom du machine. ma nga ca marché ba. ma nga ca restaurant ba ma nga ca salon ba mooy taxampale. te terewu ko yar njabootam. mooy taxampale doom ju am maa wayi ca Atlanta. Hmm. buñ la joxee maa wallaahi ak bu sobaale. keroog bi ñuy maye Jalika ba ba ba ba hélicoptère bi wàcce Atlanta. ma taw loolu kenn musu koo gis tey gay deel tey gay deel kenn musu gis loolu. gar bi foog ñu yóbbu la ci gay gay deel foog ñu yóbbu la ci moom. foog mu yóbbu ko ci palais bi foog mu yóbbu ko ci palais bi fii karak foog nga dem ci palais bi. waaw palais bi moom it foog ñu ànd fa waaw. soo fa jugee nag dama boo fa jugee nag dama lay boole keneen ku baax ñu koy wax maam sugu farandeer nga sama takk doom bi. maam sugu dafa baax sama yaram dafa daw maam sugu noonu la bëggee maam soxna. ak a bëgg maam soxna da ko teral maam soxna da ko teral Amérique naaru kajoor bi gis nga pap mm-hmm. sama yaram dafa daw mm-hmm. mormaan dafa jàpp ne day maye maye maye maye maye jàkka uh-huh. uh-huh. mm-hmm. ku ko dégg rek ñëw sa teraanga ku ko dégg rek ñëw sa teraanga sama doom ji keroog la ma bette bett goo xamante ni salamata saw du ma ko waxaat ndax bëgg ko maam soxna jóge fee ñëw ni ma kuy dimbalin da ci gaaw maam su gu jóge fee kuy dimbali ni danga cay gaaw ndare baaba jóge fee kuy dimbali ni danga cay gaaw baali jëng jóge fee ndeytaal tooroodo man pap sama diggante génn ñi sama yaram dafay daw damay jékki-jékki ba ci yàgg ma ne ñii man maa leen des seen njukkal mm. njukkal li nag du woy rek dëgg la waay samay teraanga mm-hmm. sama jàmm ci ñoom dëgg la ak lépp lu ñuy séntu ci man rek mm-hmm. nañ jàpp ni mooy taxawaayu géwél piir ki lay teral da nga koy teral am solo loolu am Baye dëgg dëgg nekku na lu la jox ne yaa ko yooyo Euh, teraanga day day dal di dellu si. Mhm. wallaay dëgg la day dem ba mu yàgg mu de day mel ni balu tegs. wallaay dalee day dikkaat. wallaay dëgg la <laughs> kon dama dañ lay bàyyi nga. <laughs> Euh, dem tëjal ñu ci seen bi. ñu gërëm waaw maa ngi kontaan nag Pape. Mm. maa ngi kontaan yow fii sa kër. kër la wax naa ko léegi su ma ñëwee sama frère léegi rek njaga. Mm-hmm. nuyu bu ñoom dañu am respect mm-hmm. dañ ma fonk lool muy mm-hmm. Boubacar. di njaga. ñoom ñëpp ba ci Youssou sax. su ma gisee rek day daf may nuyoo nuyu cër boo xamante ni loolu foor na biraan dama dama mësa ñëw fi mun ma sam papa daf la bëgg boo xam ma daba sey dafa mën a way mm-hmm. xam nga loolu te Youssou ku mu apprécier rek na sa xel daal Pape Cheikh yow maa ngi lay jaajëfal mm-hmm. ndax nag yow laa bokk ci nuyu nag <laughs> baba dafa neex <laughs> baba doom Pape mm-hmm. maa ngi fàttaliku bi ngay ñëw ci kër ga di seet si sodu ànd ak sodu bu so ñëw ni ndara ñaanal ma mu ñaanal loo bëgg di nga ci teg sa loxo te boobu ba léegi macha allah affaire yaa ngi dox. waaw kon yal na yàlla xeeb doole. amiin alhamdulilah benn mbir rek sa cat ñaawle nga. waaw <laughs> te damay kokkali. <laughs> waaye baaxul rek. <laughs> Ah, <laughs> li ma Viviane naan du ma xuloog yow damay kokkali <laughs> donc dama sëy euh, day dellu day dem ci scène bi waaw moom dañu yàgg macha allah dañu yàgg lool lool lool ak ñoo yàgg ma njëkk ni ma waykat nga billaahi ndaanaan nga fekk ma ni ko damaa dem ci tonton Kabou mu ni ma demal jàngiwaat waaw mu ni kon demal jàngi ndax dina baax ndaanaan nga moom mii nit ku baax la macha allah nit ku yiiw nit ku am am maanaa turam da ko wuyu waaw gar mi da ko wuyu da ko wuyu papa loo tambay mu ndaw macha allah bég naa jërëjëf Baba <laughs> dañ lay bàyyi nga dem ci seen bi. xanaa euh, Baye Cheikh di la wax ne rek moom euh, Mamadou Ndiaye Rahma. mu ngi lay ziar di la ndokkeel. Mamadou Ndiaye Papa Jibi Papa Jibi moom laa fekkoon Kaolack. kenn du moom ca Palais ba. ñu koo ñaanal jàmm lu bëree bëri. Mhm. yàlla na jàmmam yokk. amiin amiin waaye di wax ne tamit Baye Cheikh. di mhm. am mbégte ak contentement baat ndokkeel day seeni bu kaala maak la ma jox Sirek Soogi Sirek Soogi moom tam yàlla na yàlla guddal fanam te sàmm ko amiin Baye Cheikh réew mi dafa am ay nit ñu baax mhm. ñun ndekk tam aju ci Ndella Wade mhm. sabuli muy jéem ci ségu mhm. ñaanal ko jàmm soxna Baali moom tam nu ñaanal ko jàmm lu bare bare Muntaxa notaire bu mag bi lii ka ba maître lii ba ñu ziar ko ko ñaanal ko jàmm Baye Cheikh réew mi dafa am ay gor yu baax yoo xam ne yii lu ñu am dañ ko bokk ak ak nit ñi Ndeye Teggi faal maître Ndeye Teggi Fall. sama sama bàjjan mu aana sama bàjjan mu aana yàlla dem àjjana. amiin amiin moom itam nee na macha allah kontaan na bég na. Mhm. Baye Cheikh daal réew mi daal ay nitu teraanga ñoo fi nekk. ak mhm. jàmm. Mhm. réew mi nag réewu jàmm la. yal na fi jàmm ji yokk. allahumma ci jàmm ci la ñuy dul jàmm daal jàmm ko bu yëngoo rek dëgg-dëgg suñu du ñu kontaan sax loolu ñu xam noo wax yàlla na fi yàlla def jàmm. amiin El Hadj ñu ndokkeel ñëpp sant ñëpp euh, Ibou Diop Ndiaye suma mag la ci dëkk bu ñu naan France moom itam daf ma soutenir depuis très longtemps ñu ngi koy ndokkeel bu baax euh, bàyyi Kumba euh, ñu ngi koy ziar bu baax ibu Diop Ndiaye ci dëkk bu ñu naan France Nancy mu ngi Belgique ñu ngi jot nag depuis sànq seen ay photo ak seen ay vidéo ci hashtag bii di euh, tabaski 2022 mm. yéen a ngi ñuy yónnee sañse yi tey moom Dakar li ma ne dafa meloon ni défilé de mode voilà sañse photo wu vidéo partagé donc on a reçu tellement de Euh, et de photos euh, yoo xamante ne mën nañ ko xool en même temps faites vite. Euh, bu ko defee nii ma ciy commenté ñu koy xoolaale on a reçu beaucoup de photos. Mm. de vos parts sañse rafet lool sax. donc sunu selfie tabaski 2022 wala sunu tabaski 2022 loolu moo nekkoon hashtag bi. Mm. vous nous avez envoyé beaucoup de photos lii yëpp mu ngi jóge ci internautes yi muy i défilé bu tay bi. Mm. entre TikTok Instagram. ak euh, fi nga xamante ni euh, mooy euh, Twitter donc yëpp ay photo la yoo xamante ni jot nañu ko mu jógee ci yéen internautes yu télévision Futur Média donc on apprécie en même temps photo yi nga xamante ni recevoir nañu ko di ndokkeel bu baax Moustapha Rasoul nee na ma nuyul ma Daba Sey nit ku baax la. wax ci nag benn la ci moom donc Daba Sey mu ngi leen di jox rendez-vous très bientôt xam naa ni datu événement bi festival lay doon. Euh, diggante vendredi ak samdi ba dimanche ci ñetti date yoo xamante ni Daba Seye dina ko annoncé très bientôt ñu gërëm ñëpp sant ñëpp euh, laataa Daba di woy élage euh, yan kàddu ngay tëjee jotaay bi tey. xanaa am mbégte rek ak kontaan. Mhm. di wax nag Aminta Mbaye dëgg-dëgg dëgg Amin Ndiaye bu Aminta Mbaye jillee mhm. moom itam ñu ngi koy ndokkeel lu baax bu baax a baax di ndokkeel tamit bu baax sunu jigéen bu baax boobu. nga xam ne dëgg-dëgg mooy jay ne ba léy lay may sa buur mbaadaan sa buur mbaadaan ñaanal ko jàmm lu bëree bëri mm-hmm. Baye Cheikh di wax ne ñu ngi ndokkeel groupe Futurs Médias bu baax a baax ñaanal mm-hmm. leen jàmm mm-hmm. ndax dafa ne groupe boo xam ne bi groupe bu suude la groupe bu soppente lañu groupe bu bëggante lañu lépp lu nekk dañ ci ànd ak yow ba mu sedd ndokkeel nag njaga bu baax a baax ndax Baye Cheikh rakk la teer ci rakk yu baax yi la bokk ndokkeel tamit buuba rakk ci rakk yu baax la bokk te nag Baye Cheikh képp képp ku fi jaar say bokk dañ la épaulé téye la la mhm. te ñoom dañu épaulé lool ki nga xam ne mooy président Youssou Ndour mhm. ndokkeel nag sunu doom ju baax ji na nga xam ne mooy sunu directeur Birane di Birane mhm. yaru lool yiw lool gore lool bëgg lu baax waaye Baye Cheikh mënuñu tëj te duñu ndokkeel Pape Cissé eh. jaaxaak Cissé ak maam damay ma Cissé Alima Ndiaye muy daani ci kooku affaire la xam naa ne daal Wave moom baax na waaye moom dëgg-dëgg Amadou Mbaye Gane mi fu mu toog ci balaa jóg la koy jëkk a si sa yàlla na yàlla guddal sa fante sàmm la benn grand xam nga géwél nag day bëgg wéef waaw <laughs> géwél wéef la bëgg géwél day bëgg eh, wéef eh, gisuma laak yooyu yëpp te <laughs> eh, wéef na fi erreur la erreur la ah, donc moom nag xam na wéef <laughs> waaw yàlla yàlla sàmm ko bàyyi jërëjëf El ñu ngi gërëm wéef bu baax tey euh, spécialement moo nekkoon sponsor euh, bu soirée tabaski euh, bu télévision Futur Média ñun itam dañuy ñaani ndéwénal moo tax ñu bëggoon a teel a lalli mm. mën a àggali ñu nit suñu soirée yi mën a àggali ñu nit suñu guddi Euh, mu ngi fi euh, di euh, teral sénégalais yi ci yu baax gërëm tamit bouillonkat yi nga xam ni Sénico moo ñu ko jagleel et que mu ngi disponible fépp foo xamante ni bëgg ngeen faa dem pour jënd ko ñu ngi gërëm itam bijouterie Zamzam moom la ñu àndaloon tey ñoom ñuy spécialisé wu ci wàllu njaayum bijou 21 wala 28 carats ñoom tamit ñu ngi leen di gërëm bu baax Pape Samba Thiam Aïssata Sy mm. Nabou ah Abdourahmane Gueye mm. Petit Ndoy Demba Ndaw Euh, Abdou Karim Boni Charles Lebon ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm Kulim Dioum merci en tout cas dina dellu si xam naa fan yi euh, naa ci profito nok noppalu tuuti waaw xam naa di ngeen ma xaw a gëj a gis tuuti sax waaw waaw da ngeen ma xaw a gëj gëj gis tuuti tàggooguma sax waaye daal euh, tàggu naa saa bopp <laughs> xam naa ni Bouba Ndour fa mu ne nee na bërët waaye fan yi daal mbokk yi di ngeen ma ko baalal rek waaw fan yi di ngeen ma ko baalal wàccoon na ma yéen ci euh, xaru tabaski wàccoon na ma yéen ci guddi gii tey ba beneen rek incha allah ci télévision Futur Média première télé fii ci Sénégal ngeen ñaanal Youssou Ndour bu baax mu yàgg fi lool te ànd ko ku wér koo xamul de ko woowee e yàlla na taxawaayam yàgg du càggin nii euh, dañu koy liggéeyal mu nuy fay euh, ak di ñu teral moo tax ñu koy gërëm mm. waaye amul ñaar ci Sénégal lim fi def ci emploi yii mu def ci réew mi. billahi man day leer na ma ni gouvernement sax defu ko. ba ab lam daa ni moom di ko def donc ku yebu ñaanal ko ku ko mënta ñaanal nag euh, xool ko rek. te euh, bàyyi ko ak sunu borom. donc yàlla yàlla dëgëral ko. Mm. man dey personnellement maa ngi koy gërëm sama baatu démb mooy sama baatu. tey moom laa xamul nu ma koy def. donc yu Ndour yàlla na jàmmam yàgg gërëm ñëpp. Euh, sant ñëpp El Hadj Man Mbaye Garmi mm. gërëm tamit euh, Ibrahima bu service à valeur ajouté mm. bu euh, télévision Futur Média gërëm tamit sama xarit yëpp mm. man damaa jafe yàndal waaye ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm kulim juum bég naa ci ñëpp di tàggatoo ak Daba Sey mu bégal ñu ak live bi nga xamante ni ab mos la rek en attendant événement yi nga xamante ni moo ngi koy préparé ci ay fan parce que toog na ñaari at yoo xamante ni joxuñu anniversaire bi mu ñu tàmbaloon ca fi nga xamante ni moo di euh, grand théâtre kon Daba Sey moo ñuy bégal ñu tëj guddi gi ba beneen incha allah ci télévision Futur Média di gërëm sama frère yi mhm. ma àndal waaw xam nga ni maa ngi seen maa ngi seen Lamine Naar. Lamine sama doom mu ajot na Ndeye Mari Ndiaye Gawlo. xam naa ni yaayam yaayam bu fi nekkoon kenn du ko jiitu ci plateau yi. waaye bu ndeyam ji dellu si waatoon du defaraat toogaayam. dëgg mu ngi àggali mission boo ko fekkee Amérique. yar ak liggéey la fa nekkee ci aar bi mu nekk boo ko fekkee fii senegal group bu mënti nekk ci yow ci Wally Seck da ngay fier ci euh, ci ci Lamine Naar mu yaru lool te <laughs> bu ñàkkoon jom dana nu jaaxal de. wallaahi wallaahi waaye nii mu def. wallaahi jox na njëng cër. Mm-hmm. nii mu def. Mm-hmm. jox na mboor kumba cër. Mm-hmm. nii mu def xam na ni ci askan wi mu bokk. nii mu mel noonu la war mel. wallaahi soo meloon neneen. dëgg-dëgg dëgg-dëgg danañu am gàcc. wallaahi yal na yàlla sàmmal tuub. macha allah moom Cheikh bokk ah, Alcor. Uh-huh. Fassale Siga Dieye Marco de Birane Diagne Toubé. yëmm a bokk Malamine Fassala. yéen a bokk ah, moom yaay laa ci moom. macha allah. sama doom la ñii ci des na sama frère lan Abdou Thiam mm-hmm. Mm-hmm. ak ñi mu àndal ñoom gaynde parce que yow sa groupe mooy sa njaboot moom ñooy sama njaboot waaw waaw ñoom Raymond en mm-hmm. Baro moom defe naan ci kër gi la dëkk ci gi la dëkk waaw ah, kii mooy Taïba borom Taïba Ndiaye uh-huh. Lamine uh-huh. borom Gossas uh-huh. mi ngi noonu ak ki nga xamante ni mooy Dave ak Thiat Aziz Tama ñoom ñëpp samay samay samay lan mais sama njaboot lañ macha allah kon maa ngi leen di ñaanal rek ni ñu ànde mu yàgg lool mhm. kontaan naa di kontaan bu baax ci Pisco sama frère mhm. di kontaan ci ki nga xamante ne nii mooy euh, Mor ni sama jëkkër mhm. Pape daf ma daf ma jàppale jàppale bi dafa yaatu lool. mais xam nga ne mooy sa fan sa président fan sa club. moom mooy ni mooy ndoboon. moom boo ko ne Kiné Lam daa mën boo ko nee Youssou Ndour daa mën way sax mu ne la. mun la ah, ah. defe naa a ko dàq way. <laughs> gis nga loolu yëpp loolu yëpp rek bëgg sa nit la. ndeysaan ah, di kontaan ci Pathé uh-huh. sama doom. ak yaay ndare mi ngi ñëw ak Alima. Uh-huh. ak sëñ Fallou sama sama sama sëriñ. sa manager sama manager waaw <laughs> <laughs> kontaan naa. macha allah jërëjëf jërëjëf dama ñu def si bin ban. waaw yee ma way la yella duma ko way ku ñaaw a ah, yella yee waaw ma way la yela waaw duma ko way ku ñaaw càmmiñu Abibatu Nduur ak Faatu Kine Nduur taalibe Sëriñ Bamba gawlo gawlo gawlo